ku demee ni ministre Youssou Ndour euh, am na ay représentants yoo xam ni jokkoo nañu ak CNG wala ministère du sport danañu euh, gis ay mbir yoo xam ne yi ñu def benn làmb dootul nekk rek sport day dal di nekk spectacle waaw bu ñu ko defee spectacle dina euh, concourir ci économie bi dana concourir ci politique de l'emploi lan nga xalaat ci violence yu bëri yi am ci làmb ji. li bu tubaab naan absence de conscientisation euh, dafa fekk ne ci ni ma ko fooge man ñi nga xam ne ñi ñoo yore làmb ji maanaam champion yi euh, normalement ci ni ma ko gisee lu demee ni autorité comme euh, CNG walla ministère du sport dañu waroon seet spécialiste nga xam ne euh, euh, par jamono par jamono muy jël écurie par écurie ñëw di waxtaan ak ñoom won leen ne leen amateurs yi ñuy gis ci làmb ji ñu bari du amateurs yi ñoo defar làmb ji ba di fa ñëw déedéet ñoom ñoo defar làmb ji ba tax amateurs yi bëgg faa ñëw léegi nag il faut que ñoom defar boobu ñu continuer koo defar muy defar bu rafet ndax kat amateur bu jékkee beneen man bu ma sàncee boo solee sama mbub mu baax bu ma demee mën na am ñu xeex xotti ko walla ñu xaañ ma wala bu may ñibbisi ñu dab ma dal di may agressé ah amateur yi danañu wàññeeku te loolu du intérêt champion yi du intere écurie yi écurie yi dañu war a xam lan lañ li ñu yore lu mu doon bëgg parce que ni ñu téyee làmb rek noonu la ko nit ñi di téyee waaw comme nag ni ko ni niñ ko téyee noonu la ko làmb di téyee te ñun dañuy ñaan ñu développer làmb be làmb euh, laxas ci culture muy indi tourisme ba dem niveau international il faut faudrait que ñoom ñu nekk ay modèle yan dispositif de sécurité la ñu war a mën a teg ci biir écurie yi. loolu lu mën a nekk la te lu war a nekk la loolu muy intérêt écurie yi ci seen bopp. dispositif sécurité waaw muy seen intérêt ñoom. parce que seen intérêt mooy képp ku jóg doo am ñaari xel pour dem seetaani seen làmb waaw képp ku jóge bitim réew nekk dégg nga euh, ox euh, tubaab doo doo am ñaari xel ne man bu ma demee du ma am sécurité wala nangam ak nangam loolu mooy seen intére ñoom comme seen intére la nag te nit dafay dafay naw suturaam la la nga xam ne lii moom lay euh, suturloo daf ko war a naw donc ci ñoom la ñu war a commencer. waaw naka la ñuy commencer ci ñoom ñu conscientiser leen euh, d'accord dégg d'accord dégg naa euh, tey euh, CNG ci ndigalu ministre des sports. waaw ne alors dégg nga léegi dañuy jël ay daan waaw mais daan dafa am lu ko jiitu li ko jiitu mooy lan mooy aar. aar aar c'est-à-dire euh, balaa ngay balaa muy ñëw nga def en sorte que mu bañ a agsi maanaam euh, prévention li tubaab naan prévention fàggo voilà voilà fàggandiku wolof naan ko fàggandiku du dëgg fàggandiku boobu mooy naka lay demee mooy ñi nga xam ne ñii ñoo nekk ci écurie yi ñu am ñu ñu ñu fay yebal ñuy waxtaan ak ñoom won leen ne sécurité bi seen intérêt la ñoom ndax sécurité bi bu amee la jigéen ñeek ndaw ñeeg mag ñeeg étranger yeeg ñëpp di ñemee ñëw di seetaan si te ñooñu bu ñu ñëwee seetaan si ah sponsor yi parce que am na ay sponsor yoo xam ne yi violence bi tax na dugguñu ci ndax bugguñu euh, bokk ci affaire loo xam ne lii violence lañuy wane seen seen kii ñoom duñ ko nangu donc bu violence boobu amulee ñoom seen intéret la. ci biir stade bi nag yan dispositif de sécurité lañ fa war a mën a teg. bu fekkee ne combat bu toll ni combat Yékini bii ñuy prévoir le 22 euh, man de bu doon man damay jéem am euh, des éléments de gendarme ay éléments wu gendarmerie à cheval pour extérieur bi. bu ko defee dana yenni police bi police bi bu ko defee mu mën a jot nitam yëpp bu ñu jotee nit seen nit ñëpp eh, ñu assurer sécurité bi ci biir mooy def ay policiers ci biir fa nga xam ne fii bëri ba fa lay amee. donc da des deux corps. des deux corps absolument euh, bu ñu defee loolu ba pare nga xam ne sécuriser nañ ci biir léegi nag euh, ñoom xam nañu. les points sensibles bu bu bu bu bu làmb ji tasee ñu def ay check point def ay check point pour rassurer nit ñi bu ñuy ñibbi bu ñuy kuy ñibbi xam ne seen naa policier fale ay policier fale sa day dal euh, parce que ñay def loola sax bokkuñu ci écurie yi ay ay samba boy la ñoo xam ne ñii bokkuñu ci écurie dañuy xaar bi làmb ji tas ñu profitoo ci pour addu kalpe nit ñi tafu ñi agressé ñi ñoo ne bokkuñu ci écurie comme ñoo ne bokkuñu ci écurie nag il faut que ñu sóoraale leen def ay check point yoo xam ne yi dégg nga ci ci zone yi nga xam ne ñoom xam nañ ko policiers yi xam nañu kii yooyu les points sensibles def fa ay def fa ay ay check point nga xam ne du ñu agressé kenn ñëpp ñi beeg jàmm lan sa xalaat ci violence bu bëri bii am ci làmb yi fan yi rawatina ci biir face à yi. xam nga loolu mooy wane ne ñooñu xamuñu li ñuy def lu mu doon xam nga lu tax parce que promoteur bi ci boppam dafa leen waxul waaye face à ba pour promoteur bi publi publicité la day jaay produit am waaw bu fekkee ne yaa ngi bëgg a jaay sa produit nag ay gobar génn ay jaasi génn mbaa produit bi dina jar. nañu ko seet ci Mohamed Ali aux États-Unis da ngay gis ci pesée bi ñoom ñaar ku ci nekk day dankaafu morom mi ku nekk di bakku ku nekk di tëggu bu ko defee nit ñi nit ñi seetaan télévision ne ah yiw combat bii dinaa ko seetaan yi xam naa ne dina tàng nangam nag loolu mooy but bi bu ko defee nit ñi dañuy ñëw dañ naan ay boo seetee keroog ba ñuy kii kii bët yem ko xool kii ni mu bandee muscle kii ni mu defee nii kii nam koy dankaafoo bu ko defee ñëpp ne ah yii combat bi foog ma seetaani ko lii mooy but bi publicité la moo tax ma ne la conscientisation bi loolu moo ko waral waxtaan ak ñoom won leen ne lii lii moo ko waral lii seen intérêt la parce que nit du bañ boppam. ndax mës nga teewee lii di ab combat de lutte. dernier combat bi daal <laughs> laa laa seetaan mooy. Euh, Lac de Guiers Eumeu waaw kooku moom c'était vraiment bien euh, man dama yaakaar man nag du ma expert làmb ma man ni ma ko yaakaaree dama yaakaar ne Lac de dafa wóolu woon boppam ba mu ëpp moom yaakaaroon moom wóoroon na ko ne mooy daan loolu nag baaxul ci sport ndax ndax ndax reenu ñàmbi la ci sa xalaat làmb nu mu siiwee léegi fan la wax a mën a jóge dafa am ñoo xam ne ñoo ko liggéey kon ñoom Mbaye Guèye comme Tyson mii di daanu tey comme Tyson comme ñeneen ñoo ful fulaal làmb fay faydaal ko daal seen bopp dañu fay daal seen bopp nit ñi daal leen fekk si leen mais bu fekkoon ne faydaaluñu seen bopp boo leen fayee dërëm ñu bëri làmb du àgg fen nañ ñooñu nga xam ne nag ñoo ko liggéey di tabax depuis ay ay falang ak ñooñu di ko di Abdourahmane Ndiaye ñooñu dégg nga di góor di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey ba mu agsi fii dañu ko war a continuer nag di ko liggéey ñi nga xam ne ñoo nekk ak ñoom xam ne ñoom kat seen njub seen volonté seen ténacité moo leen ak àggal fii ma dellu si waat ci Youssou mais bu njëkk boo nee chanteur nit ñi sàngara la ñuy xalaat naankatu boo nee chanteur nit ñi sa naankatu sàngara ak koo xam ne kii ci bërëb yu baaxul yi lay dem. du dëgg amul lum gëm il a fallu nga ñu demee ni Youssou Ndour ma di ma di ko fàttaliku moom ca euh, dancing bi ñu doon lu ba mu nekk xale bu tuuti am encadrement am fulla ak fayda faydaal li muy def gëm ko yan relation nga am yow ak dirigeant wu làmb ji. Euh, bon président CNG bi xam naa ne Fatick la dëkk di man mais euh, malheureusement euh, miinante miinante wuñu lan mooy sa xalaat ci xarfa xuufa yii ci biir làmb ji. loolu yëpp mooy mooy li nga xam ne lii mooy indi touriste yi journaliste yi di ko di ko bind di ko décrire bu ko defee waaw. ñuy sottee koo que kii ñiy takk fii ñii kii yooyu yëpp dafay indi ci culture bi la. ndax du jot nañu jëndi xarfa xuufa yi ci biir làmb ji. man gëw ne euh, loolu nekk lu baax parce que dafay am lu mu ciy dindi dafay am lu mu ciy dindi nee nee la woon euh, ñu dindi ñu dindi lute def wax làmb sénégalaise. waaw làmb sénégalaise nag dafa ëmb lépp la ëmb. aada waaw aada cosaan boo nee lut waa ji day dal di sol caleçon dégg nga ñu songo kii daan kii kii kii daan jeex na waaye boo nee làmb dafa am ay préparatifs am yeneen yu ñuy wane am kii bu ko defee nag nga walbati ko nag parce que loo gis dafa war a dox méngoo ak jamono ñu fexe nag def ko nag spectacle dindi lutte bi naan làmb sénégalaise ba en France ak feneen fépp bu ñuy naan làmb sénégalaise. jaajëfal nañu euh, monsieur Souleymane Ndiaye criminologue gis-gis bi leer na rafet na Moustapha dañu nekk rek ci spécial Yékini Balla Gaye léegi nag dama lay dëxëñal lépp. Hmm. force faiblesse. xam naa ni sa faiblesse Yékini moom doo ko sawar a wax. ak mental. ay sa kon force faiblesse ak mental Yékini. ci Yékini lay démarré. Yékini waaw ngay démarré moom doomu baasul bi. exactement ki nga xamante ne dafay cëppeelu ci gaal rek songoo di bëre. Uh-huh. dèjà yaramam a na bëre. Uh-huh. bëre ci bëre tuut tànk. waaw mais Zeynab ñun dañu am problème mu mbir yi sax dañuy màgg ñoo doon ponkal rek di bëre. mais sport partout yéeg ba sa ñëwaat. Uh-huh. loolu dafay dal nag mbiru séeréer yu bari. dañuy ñëw joow ci gaal yi génn ci tool yi songoo di bëre. dañ koy màggaale. dañ koy te nag loolu daf ñuy indiwaat ci aussi que ne bëre. mooy premier sport ci àddina Zeynab Soobe day dama la wax jël ñaari gone teg leen ci aw lal ñu tëdd ay liir de <laughs> teg leen ci lal li ñuy njëkk a def mooy bëri seen loxo yi dina dem seen tànk yi dina dem nañ saafonte <laughs> donc bëri mooy sport ne nekk na sport bi jiitu ci àddina waaw léegi nag boo juddoo nag màgg ci gàññat songoo di bëri di ko def di ko def bay jege la quarantaine ça veut dire que sa yaram min na ko waaw lan ngay wax ci ñi nga xam ne nee nañu Yékini nee na ki koy daan mhm. da ngay mën bëri lool macha a li tafaagi mhm. gaaw macha allah ni baabooy mën mën rasu lool ni Lac de Guiers numéro un am doole macha ni be cinquante bu mbuur lan ngay tontu ci loolu ci ñi koy wax. <laughs> ah si boobu moom doy na ce que loolu am na ci làmb gi nekk la ma ah loolu nag dina jafe na trop waaye jombul nag xëy na kami dajeel ah tënk na yooyu yëpp. ndax kami dajeel tamit ah am na ay bagage am donc bu ñu continuer ci Yékini. Uh-huh. dèjà li nga tënk ci yooyu yëpp foog nit mel noonu pour daan ko. Uh-huh. donc daan ko jafe na. jafe na maanaam boo koy daan da ngay yeewu fajar liggéey lu baax. def ah, lu baax bien sûr surtout. prouver doo ko ñëw. parce que moom day liggéey. Mhm. moom boo ko xoolee gis ne il est en super forme. il a ses muscles. seen dernier face à il est sérieux dans ce qu'il fait. sérieux daal vraiment liggéey na ba mu loolu moom nekkatu lu ñu waxante ñun ñu xam sport xam sportif gis nañu njëkk ni tout à l'heure yàggul gis ko ci image yi. Mhm. gis ne vraiment il s'est bien préparé. Mhm. defar na combat baax mu des nag dogal yàlla ba ca bis ba léegi yëkk ni ki nga xamante ne boo jàppee tànkam day bëri. waaw boo ko doon day bëri. soo ko balee ñaar loxo day bëri. waaw ba pare dina am direct du du gauche bi te dina xeex te dina reculer. Yékini ginnaaw ci combat su ko arrangé waa waaw ndax dañu gis ni. contre contre Gris Bordeaux. reculer bi nga wax feeñ na ci. mais a bu fekkee ne da ngay bëri. nekk ci position bu baaxul. mais génn ci position bu baaxul boobu. nga joxe dafa war pour mën a bëri. mais du ma arrière du ma daw du ma déplacé wu dóor ma ma dóor la sama tànk du ma ko dund nekk nii moo tax dina mbir mu koy def très souvent di bi yëkkati ne fekk ko ci de boo ko attaqué ko defee rek day reculer. léegi gis naa ni force bi yaa ngi ciy wax léegi The King boo doon segg faiblesse am lan nga koy wax moom le roi des arènes. faiblesse am mooy euh, xam nga euh, d'habitude un dafay ñemee pigiade dóorante. dóorante maanaam fi ko Balla Gaye war a mën a woo dóor ma ma dóor la. xam nga wóoru ci làmb ba tey. waaw mais nee nañu ñoom ñëpp duñu ay boxeur duñu ay ay aas ci boxe maanaam dóor trip gi ngay wax kurpeñ Touba Dakar yu daw. Mm. gisuñu ko ci ñoom ñaar. ñàkk nekk ay dóorkat ñàkk nekk ay xeexkat moo tax ma dugg ci pigiat dóorante maanaam dóor ma ma dóor la dóor ma ma dóor la ba kenn daanu Yékini aussi dugg ci boobu si donc ci biir bagaar bagaar de bi aayu ci donc saa bu amee bagaar de rek day day bëri ji donc foofu mën nañu mën nañu ci teg ay combat yu jeex yoo xamante ne saa bu bagaado amee pigeat amee mu dem bëri ji pourquoi mu dem bëri parce que bërikat la boo doon defar mental bi di ñaax tey ñaax buñ koy ñaax ñu ko yore nan lañ koy ñaaxee c'est-à-dire ko euh, boo xam ni ah ñëw na nee na damay dama lay simpi ci ci fauteuil bi nga toog <laughs> voilà euh, normalement Yékini aujourd'hui combat bi dina peser dina peser lourd ci moom pourquoi uh parce que ah quoi ak lu mu mënti wax rek mooy mbër bu duggee ci làmb di bëri dafa bëgg bëri ba bàyyi bëri te du daanu mosul am Sénégal amagul ci làmb amagul ci làmb moom yàlla mun na ko defal donc moom dafa bëgg a nekk exception bi confirmé la mooy loolu donc nag dina bëri waale loolu mhm. dina ne mais attends man li ma def ci làmb yëpp dajale ko ak temps yi combat yi ma am yëpp gloire bi ma am yëpp ñoo fi daan ñëpp bi moo ñëw daan ma loolu tam mën a mhm. mais en tant que champion am titre yëpp am honneur yëpp xalaat nga ni rek loolu war na ko xaw lënt lënt du ñëw rek falaxe loolu ni xale bi moom moo war a prouver parce moom mooy taseeg le roi des arènes su bëggee jàmm su bëggee def combat am sagement tranquillement foog mu raxas yooyu mel ni rek maa ngi tey moom dafa war ne maa ngi Balla Gaye ñoo maase mooy mooy mental bu baax bi waaye naka su dul rek mooy ah ki mu bëreel nag moom ah lu nekk ci kanamam nag day ñëw sa kaw dégg nañu seggu faas bi lu mu wax dafay ñëw rek ni maag Balla ñëw ñoo maase hmm. ñu ànd xool sunu zapping